الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي خلق البريات وجعل لهم في الحياة عبرا وعظات ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أيها المؤمنون إن الحياة من أعظم النعم وأجلها وهبة توجب شكر واهبها فقد جعلها الله تعالى مليئة بالعبر يدركها من تفكر وتدبر وقد حفل القرآن الكريم بتجاريب من حياة الآخرين لنقتبس منها فوائد تنير بصائرنا وتحيي قلوبنا فمن الحياة نتعلم دروسا إيمانية وقيما أخلاقية ومهارات حياتية من وعاها وعمل بها حمل أمره وبقي في الناس ذكره وعظم عند الله أجره فماذا نتعلم من الحياة يا عباد الله بقي قلنا بن سنتي يا الله سبحانه سبحانه وتعالى مي ساك لب لو ام يالا مي جيل ادنا بي def ko mu nekk ay jàngat ci bépp jullit wala ci bépp ku am xel ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala moom mu di seede ne amul kenn kuñ war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te ñeelul ñu koy bokkaale ak kenn di seede ne suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ko topp ci njubam ba wis penc di taxaw mbokk ci yàlla ñuy dénk suñu bopp di leen daj di leen dénk ragal borom bi subhanahu wa taala mu kawe mi nit ñu ko dénkee ci aaya bii ni ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li xad ay yéen ñi gëm na ngeen ragal yàlla te yóbbulu ci fa ngeen jëm muy yawmal qiyaamati te la fay jariñ mooy ak yiw na ngeen fàggandiku lu ngeen mën ci ak yiw ndax mooy la leen di jariñ fee nga jëm ci yawmal qiyaamati mbokk yi ci yàlla lii di àdduna bi de xéewal la boo xamante ni yàlla moo ñu ko defal muy usine wala entreprise bi nga xamante ni fa lañu war a jaamoo yàlla ngir ëllëg buñ demee mu fay ñu mu bokk ci xéwal yi nga xamante ni xéwal yu mag la yu ñu yàlla defal képp koo xamante ne nag borom xel nga nga xam loolu kooku da nga war a delloo njukkal suñu borom subhanahu wa taala mi la ko jagleel. àdduna bii nag mbokk yi yàlla da cee def ay ibar ay jàngat yoo xamante ni képp ku ko settantal képp ku settantal li borom bi subhanahu wa taala dëxën ci àdduna bi loolu bokk na ci li lay defar sam xel waaye bokk na tamit ci liy tàggat sa ruux te lépp li ciy jëriñ fenn la ko borom bi subhanahu wa taala waxee ak ñun mooy ci alquranul karim bi muy distuuru def jullit ci àdduna bi mbokk yi lañu yàlla defal ay mbir yoo xamante ni moom la ñu war a jàngat ana yan jàngat moom la ñu war a jàngatee àdduna bi bi ci njëkk mooy nataallamu منها أن الإيمان بالله حسن منيع وملاذ رفيع من تفيأ ذله اطمأن قلبه وقويت عزيمته وطابت معيشته àdduna bii dama kii li ci jàmm bi war a njëkk fàggandiku ci muy xéewal bu mag bu ko yàlla defal mooy mu delluwaat léppam ci borom bi subhanahu wa taala mooy gëm al imaanu billah gëm yàlla ndax tiir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wër ci xuru Makka yi ci di def tadabbur ci asamaan si kan moo ko war a sàkk suuf si jaww ji lépp ba ko borom bi subhanahu wa taala di dalal xelam ca gëm yàlla la dalalee xelam iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaqin iqra wa rabbuka al akram ba ba ay jeex kon li nga xamante ne mooy liy jëriñ képp ku yàlla sàkk wàcceele ci kaw suuf yi li lay jëriñ fii ci àdduna ak fee nga jëm ci àllaaxira moom mooy gëm yàlla bu sell mooy lalu ci lépp loo xamante ni moom nga jëf yàlla nangu ko moom la borom subhaanahu wa taala wax ci alquraan mu ni man amila saalihan min dakarin aw unsa wa huwa mumin fala nuxiyannahu xayaatan tayiba yàlla suñu borom nee na képp koo xamante ni yaa ngi jëf fii ci kaw suuf jëf joo xamante ni ñu ngi koy tuddee jëf ju sell jëf ju yàlla nangu muy jëf joo xamante ni day ànd ak lu yàlla digle nga jëfee ku ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ngay góor wala ngay jigéen di way gëm yàlla mooy dinaa la defal dund bu tey fii ci àdduna te lay xaar ëllëg yawmal qiyaamati xaalidina fiiha ci ay xéewal yàlla ñu ci yàlla defal ana ñaata doomu aadama ñoo nekk nekkoon fii ci kaw suuf wala nekk fii ci kaw suuf ba tey di fi dund dund gu xat moo xam ci feebar moo xam ci ñàkk moo xam ci xat-xatu àdduna yi lu dul ni da ngaa jël sa gëm yàlla mu nekk sa wéttal nga sax ci dëggu ci lu dul ni yàlla daf lay teggil yooyu lay xat-xat fii ci àdduna fee ci yowmal qiyaamati nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nettali nee na dina ñëw yowmal qiyaam ñoo xamante ni dañ daan dund fii ci àdduna dund bu xat bu xat bu métti moo xam ci feebar la moo xam ci ñàkk la moo xam ci bépp xat-xat daanaka seen dund lépp ci loolu lañ ko jeexal ci àdduna waaye ñu ngi desoon na gëm yàlla yonent saa salaam nee na bu ñu ñëw yawmal qiyaamati yàlla da leen di jël ubbi buntu aljana rek sóobu leen ci génneewaat leen ñu yurndu rek génneewaat leen yàlla laaj leen ndax mës ngeen a dund ak naqar wala lu metti ci kaw suuf ñu ni wallahi musuñu am lenn lu ñu yëg ci kaw suuf ci lu metti fàtte nañ lépp mu ngi mel ni sax àdduna saatan min nahaar lañ fi dund benn benn waxtu bu gàtt lañ dund ci àdduna naka noonu tamit la yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee ni di nga gis koo xamante ni yowmal qiyaamati dina ñëw fekk mu fees delloon ci àdduna ak alal musul xam lenn lu dul luxe fii ci àdduna dund bu neex bu tey la doon dund dund boo xamante ne lépp luy lëpp si àdduna amoon na ko waaye àndul woon ak imaanu billah gëm yàlla kooku yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na dañ koy jël sóob ko ci sawara rek sippi ko laaj ko ndax mës ngaa dund lenn lu neex ci kaw suuf moom it mu ni wallahi mësumaa dund lenn lenn lenn luy lu neex ci kaw suuf kon dund gi nga xamante ne mbokk yi dafay jeex kenn waru koo jëndee dund ge nga xamante ne xaalidina fiha ci ay xéewal te li koy maye moom mooy al imaanu billah mooy gëm yàlla gëm yàlla bu wér loolu la yàlla wax ni wa kadalika nundi muminin man yàlla de képp koo xamante ne teg naa la lu mu mën a doon ci kaw àdduna fii nga dégg ko gëm yàlla man nii laa lay fay yowmal qiyaamati te wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan képp koo xamante ne ragal na borom bi subhanahu wa taala yàlla ne dinaa la fay fii bala ngay faatu boo ñëwee fee dinaa la fay yàlla nañ ci yàlla boole mu bokk ci li nga xamante ne nag moom la ñu àdduna bii di jàngal borom bi subhanahu wa taala wàccee ñu fi ngir ñu jaamu ko mooy ni ab jullit ab xolam bi nga xamante ne fa la war a gëmee yàlla al imaanu billah dafa war di sax di tudd yàlla zikrullah yàlla mu ni ala bi zikrillahi tatma innul qulub mu ne ndax du lii di tudd yàlla dafay yóbbe xol bi mu ne xol bu dal xolu jullit bi dal du denc lenn ci xat-xat lépp lu ñëw ci kawam rek da koy dégg koo ak muñ dégg ko ak nangu ne yàlla moo ko dogal ci kawam ki nga xamante ne nag nanguwul lool li yàlla dogal ci moom ba tax na sax moom fëttërlu na tudd yàlla sax daanaka defatu ko kooku de mooy ki nga xamante ni moom la yàlla misaal ci alquran mu ne summun bukmun umyun fahum laa yarji'uun mooy yàlla mu ne ñooñ seen lampi xol maa ko fay wala iyaazu billah yàlla na ci yàlla musal mbokk yi ni doomu aadama di nattee ay lampam yu fay fii ci àdduna mooy bu ñu demee ba lay wax ci yoonu yàlla ci ndigal lu yàlla wax wala lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mu lay tànqal mbir mi di la tànqal xamal ne yow say lamp xel say lamp xol fay na te bokk na li ci li koy dundal di ko naam fatal di ko di ko tuuxat moom mooy zikrullah di tudd yàlla subhanahu wa taala yàlla mu ni ku dëdd loolu nag wa man aarada an dikri fa inna lahu maishatan danka képp koo xamante ni won na ginnaaw lii di tudd yàlla te ba te jiitu mooy alquranul karim képp ku ko dum mooy won ko ginnaaw yàlla mu ni yow bul sax sonn dinaa la defal dund bu xat fii ci àdduna te boo ñëwee yowmal qiyamati ñii silmaxa ngay doon wa naqsuruhu yowmal qiyamati ama yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi dafa bokk ba tey ci li ñu àdduna bii di jàngal ci ni kii borom àdduna bi kenn la mooy yàlla subhanahu wa taala te yàlla mu ni lépp loo xamante ni gis ngeen ko fii ci yow ci xéewal ci kaw suuf mu lay yéem xamal ni ay magasin laa jot ci kaw ak ci ci ci fa ma ne te soxlawu ma ko jagleelu ma ko kuddul sama jaam yi lenn nag laa soxla ci jaam yi bu boobaa mooy nañ ma ñaan yàlla mu ni lépp lu jaam bi soxla bu ko ñaan ak mbindeef na nga ko ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki mooy ar razaqu dul quwwatil matin mooy ki tëlewul dara mooy ki am kàttanu maye lu mu mën a doon boo demee ci zakariya moom la mu tële woon mooy njaboot te njaboot mbokk yi jàmm bi du ko may boppam ay pexe taxu taxu koo am njaboot zakariya ba mu demee ba soxla njaboot te boobu màgget na soxna màgget na amul benn lu ñuy wax moyen lu ñu xam ci loo xamante ni Zakaria mën na ca am njaboot wante ba mu demee ci taalibem bi di Mariam fekk ko ay fruits saisonnières ay fruits yoo xamante ne xamu ko ci jamono jii ni warul meññ te joxu ko ko te moom yarkat la mu ni ko yaa Mariam anna laki haada yow Mariam lii nga yor nii lii nekk sa kanam gi di ay fruits yii foo ko jëlee Mariam benn tontu la ko jox ne ko qaalat hiya min indillah inna allaha yarzuqu man yashaau bi gayri xisaab lii de yow sama sëriñ ci yàlla la jóge te yaa ma jàngaloon ni yàlla mooy wërsëgal ku ko nekk soxlawul ay moyens pour réaliser loolu moo tax lu jàmm bi soxla na ko diis borom bi subhanahu wa taala te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna rabbakum yu xayyun karimun yastaxyi min abdihi ida rafaa yadayhi ilayhi an yaruddahu aw yarudduhuma sifra nee na yàlla suñu borom subhanahu wa taala de du gàcceel jaamam boo xamante ne dafa nangu ak jaamam mu tàllal ko ay loxo ni ko allahumma yàlla di ko delloo ak ay loxo yi neen kon mbokk yi jaam bi de dafa bokk ci li nga xamante ni àdduna bii da koy jàngal mooy lépp loo fi soxla da nga ko diit borom bi subhanahu wa taala aqul ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iri muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam suñu taxawaay ñaare ba tey dañuy xamle li nga xamante ne àdduna bii de moom la ñu war a jàngal lan la ñu war a jàngee ci àdduna bii mu bokk ba tey ci li ñu àdduna bi war a jàngal mooy ni doomu aadama bi dafa war a nekk koo xamante ni ku dëgg la ba lépp lu muy wax rek mu nekk lu dëgg ndax borom bi subhaanahu wa taala de nee na sama jaam bi du dañ di wax dëgg fii ci kaw suuf lu dul dama woo jibril ba mu ñëw xamal ko ne sama jaam bi de boole naa ko ci siddiquun lu mu waxati rek dëgg lay doon naka noonu tamit la jaam bi di waxee safaan doon koo xamante ne da ngay fent di fent di fent ba borom bi subhanahu wa taala kasel la jox la diplôme kazzab waxkatu dëgg koo xam ne du wax dëgg ba tax na da ngay dem bay wax ci kanami xale duñ la nangoo dégg ndaxte yow yàlla moo kase ci say diplôme ni yow kazzab nga wal iyaazu billah kon dafa bokk ci li ñu àdduna bii di jàngal ci loo xamante ni da ngay dem bàyyi ko fi nga doon koo xamante ne da ngaa sax ci dëgg di wax dëgg booba borom bi subhanahu wa taala bi la fi jëlee dafa bokk ba tey mbokk yi ci li ñu àdduna bii di jàngal mooy ñu bañ a bokk ci ñi nga xamante ni dañuy tooñ jël àqu nit ñi di ko jox keneen wala di xañ nit ki àqam loolu de dafa doy sëkk rek ñu xam ne ci nii borom bi subhanahu wa taala nee na wallahu la yahdi al qawma adh-dhalimin ñi nga xamante ni ay tooñkat lañ man yàlla de du ma leen defal lii li nga xamante ni moom la ñuy wax alhidaaya mooy jub du ma leen teg mukk ci yoonu jub yàlla ñu ci yàlla musal wallahu la yuhibbu adh-dhalimin mbokk yi ñuy fàttali waat suñu bopp di leen fàttali ci jamono ji nga xamante ni ci la ñu nekk war cee profité jaamu ci yàlla ci yii ñu wax léegi suñu mbokk yi nga xamante ñoo nekk ci Gaza yittewoo lool wala aajowoo lool lii ñu fi wax léegi nii ngir seen dund nekk dund bu tey dund bu dal comme niñ koy dundee ñun ñëpp waaye xañ biñ leen xañ seen yooyu lay àq te ñuy ba fàttali mbokk yi di li ñu foog ni loolu la du loolu du xeexu naar waaye xeex la boo xamante ni ay ñu ragalul yàlla ñu weddi yàlla ñu yàlla jox kàttan fii ci kaw suuf ñu jàpp ne loolu mooy li fiy sax ñooñu ñooy jug di not suñu mbokk jullit ci bërëb boo xamante ni keroog bi borom bi subhanahu wa taala soxlaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir jox ko julli sànni joxu ko julli ci ci kaw suuf da koo rañaan ba mu koy rañaan benn bërëb la ko jaarale mooy fay di masjidul aqsa subhana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina bërëb boobu noonu lañ ñooñu di défendre ba tax na ñu nekk ci fitna goo xamante ni li ñuy waajal muy année scolaire taluñu ko ndax liñ leen di bombardé dund gi ñuy dund amul lenn loo xamante ni am nañ ko seen àq lépp xam nañ leen ko waaye alal aqal ci liñ leen deseel ñun mooy di leen ñaanal borom bi subhanahu wa taala ci loolu noonu bon yooyu di leen def yàlla na ko yàlla teggi te balaa yàgg yàlla na ko yàlla wone ci àdduna bi yëpp ba mu leer nañ yàlla ndërmeel la leen ci suuf ba ñëpp teg ci seen bët yëkkati lii nga xamante ni moom lañ doon défendre muy islam raaya gi du mës a laal suuf rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله